Touba ca kanam Touba univers management commune bu Touba mosquée boutique Total kër Xaadim Sylla et frères ONG Eulo Café ñoo leen di gunge seen ziar Sarsara édition 2022 salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi ànd ak yéen ci seen ziar Sarsara édition 2022 comité d'organisation bi xam ngeen nag ñi ngi ci lépp loo xam ne soxal na màggal gi fii ci Mauritanie ñoom nag wàccaay bi ak fa ñu fas yéene dem di Sarsara tey ci alxamis bi foofu la ñëpp fas yéene fanaan yi yoon bi ay téeméeri téeméeri oto daañu fa dem fa la nga xam moom mooy euh, Sarsara di oto yi nga gis suñu gannaaw ñoom nag ñoom ñooy waajal euh, bés bi lee waaye itam ñoom ñooy waajal yoon bi ak ñi nga xam ne ñoonu loolu lañu fekk fii muy comité d'organisation bi naka la ñu waajalee bés bi wala gan boo xam ne ni moom mooy dikk ñun ci li nga xam ne moom moo jëm ci oto yi oto yi nag euh, xam ngeen ne soxna May moom moo yoroon wàllu recensement euh, oto yi euh, soxna May ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay ziar bu baax a baax alhamdulilah. waaw ñu ngi def mel ne ñu ngi waaj pour dem fële nga xam ne moom mooy Sarsara mm-hmm. oto yi yow yaa koy recensé ñaata oto ñoo fi ñëw fii ci délégation bi ngeen àndal ak nag ngeen waajal. naa sax dañ ñu Euh, <clears throat> comme noonu nga ko waxee rek suñu jëwriñ sëñ Omar moom mooy recensement boobu noonu ñu àndoon ci ak moom voilà ñu répartir ko des groupes de cinq voilà nous avons am nañu six groupe yoo xam ne bu ci nekk euh, cinq personnes la voilà dañ koy répartir mooy par matricule oto bi ñu jël matricule bi matricule ku ci nekk rek bi nga war a dem danaan la ototel matricule tal boo demee foofu nga fay duggee ci noonu lañ koy defee voilà bu fekkente ni convoi bi nga jugee bi nga xam ne moom moo jë moo jugee yaa faamaloo moom la géré mu jëm Dakar ñun moom la ñu yor quoi man ak man ak Seydina Omar. yéen exactement ñaata oto euh, ñu wax d' ah, muy six oto yi nga xam ne si moom moo féete dakaar te yaa teg ko ci suñu loxo ko mooy six oto yi quoi. waaw mais oto bu nekk ñaata nit ñoo cay dem. Euh, oto bu nekk biir biir gi si cinq moo fay nekk voilà. ci gannaaw bi moom xam naa après cinq la cinq lay def aussi moom tamit. moom dañu bëgg wax ne daal oto bu nekk mën na jël dix ba quinze personnes. voilà mën na jël dix ba quinze personnes daal. Mhm. voilà yoon bi li ci war yëpp matal ngeen. waa lépp matal nañ ko vraiment ah, organisation bu ndax boobu ba léegi ñu ngi ci wax dëgg yàlla am naa yaakaar ne danañ ko dem te du am benn désordre voilà ndax li mu laaj lépp def nañ ko ci voilà mbokk yi jërë ngeen jëf soxna May ci ay leeral ci oto yi nga xam ne ni maanaam euh, wax na li nga xam ne noonu la ñuy defee dispersing bi euh, nga xam ne nag dispersing bi nag toll na ci oto bu nekk mi ngi war a jël ci fukk ba fukk ak juróomi euh, taalibe ñoo fas yéene dem ci pick-up yooyu nga xam ne moom lañ gis suñu gannaaw kon mbokk yi jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, sëñ Khadim Seck mu mel ne bokkoon ci convoi bi naka ngeen dundee yoon bi. jër jërëjëf sëñ Khadim jërëjëf euh, sëñ Fallou di leen ziar di leen sant ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne biñ ko dooree ca Sénégal tuubaak dakaar Dakar ak fu mu mën a doon ci fi nit ñi bàyyi ko ba yegg si fii tey ñu ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ndax ku ne xam na ne ñi àndoon ci convoi bi xam na ne yombul yombul ci jafe-jafe yu bari yoo xamante ne jànkonte na nag ci wàllum yoon wu sori ñàkku yoon nekkul ay tali nekkul euh, euh, rang rang waaye désert ginnaaw bi ñu dawee jugee Nouakchott lu jiitu lool sax ñuy wax li ñu daw ba ba yegg si Nouakchott def fa ay fan dundal fa lañ fa waroon a dundal ba li nga xamante ne moo ñu taxoon a jóg muy Sarsara ñu gonte nag Nouakchott ñëw fii nga xamante ne comme ni ma ko waxee daw nañ ay kilomètres yu bëri pile ay cent cinquante kilomètres et poussière doog a wàcc tali bi bi ñu wàccee tali bi nag fi ñuy jaar aw du aw yoon du ñuy fétal rek jaar ci kaw ay désert jaar foo xamante bu dul woon ak 4x4 yi nga ne programmé nañ ko pour mu indi nit ñi dama yaakaar na fi kenn du fi mën a yegg si kon euh, santaat yàlla daf ñoo war ñun ñëpp di santaat Serigne tubaa di yéemuwaat ci Serigne Touba di ko di ko di ko jaajëfalaat bu baax a baax a baax ndax coono yi mu toggoo nit mënu koo xalaat boo yegsee ba fii xam ne Serigne Touba amul morom ndax fii ku fi dund kenn ci ñun ko xamante ne bëggoon nga ko fee bàyyi cinq minutes wan la ko gannaaw boo moytuwul mu xaru moo koy da koy jaral xaru waaye doo ko fi ba yoon wi nag comme ni ma ko waxee xawoon naa métti waaye mel na ne mi ngi am mbirum Sëriñ Tuubaa amul tànki gannaaw. Nabiyu Rasulul Mustafa salaamaaleykum ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp waaw dayre bi day dayre euh, kii la dayre Sarsala bu bu Njaañ ñu gën ko xamee ci dayre Serigne Modou Fall bu sëñ Abdourahim Fall moo fi ñëw daaw taxawal moo fi ñëw daaw dayre bi ah wax dëgg yàlla depuis daaw ba fi ñëwee ba la ñu ne Touba Njaañ mënut a ab dayre faaw dañ fi taxawal dayre Touba Njaañ mu ñëw taxawal ko fi macha allah tamit ñu def ko daaw def ko ren gis ci yokkute bu baax nag wax dëgg yàlla moom mu dagg yitteem yëpp tamit nam ñu ko waxe woon defe ko noonu kon moom wax dëgg macha allah moom dañ koy ñaanal rek mu yàgg fi loolu tànn ak wér-gu-yaram yàgg ka eh, ni ko commencé mu yàgg kaa liggéeyal noonu ma yàlla may ko kattan may ko wér ba ni mu ko soobee mu liggéey ko noonu. santes nañ ci bu baax a baax a baax waaye nag sunu yaakaar yi tey ëllëg di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha moom mi nga xam ni moom moo waral lii tey jii ba mbooloo mu ci ne euh, di jóge Sénégal wala di jóge benn dëkk bu bokkut ak Sénégal ñëw di fi teew si fii. ngir liggéey bu mu fi doon liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam jariñ mbindeef yi nga xam ni ñoom la saa borom dogal ñu wàcc ci kaw suuf. kon loolu ba nu suñu boom dimbalee ñun itam ba ñëw ba fii amee nañ ko ak cant ameel nañ ko ak ngërëm goo xam ne dina am ab tàmbali waaye du am ab yemawaay ndax jamono bi mu fi ñëw fii loola yàgg na te booba la gënoon a tar booba la gënoon a metti terewul mag ñi doon doon doxee Sénégal ba fii di ko fekk si nga xam ne jamono jii tey nag euh, ay daamar am na ay waruwaay am na kon ñun alhamdulilahi rabbil la lañuy wax waaye jamono ja nga xam ne booba la fay sëriñ bi di nekk booba métti woon na tar na taraay boo xamante nii ndax booba daanaka lekk bëriwul naan bëriwul waay man naa ni boo amet bariwul kon te terewul mu jar loolu leen ñuy dagg seeni i yitte di dagg seeni nelaw di ngir fekk sëriñ bi fii mu nekk fii ngir jariñu ci njariñ li nga xam ne loolu la ko sunu boroom def mu nekk ci moom kon ñun itam bu nu suñu boom dimbilee ñun itam ba ni ñëw ba fekkee waxtu wii ba ñëw ci barab bi itam kon dañuy santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax ndax amuñu ak ak fayam waaye lii li war a góor góorgóorlu nag mooy ñun ñu fexe ba ñun taalibe yi kenn di jaar ci ñun ba sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa kenn musta jaar ci moom ba lu bokk ci moom. kon ñun itam war nañoo am fulla jooju ak fayda jooju ba fépp fu nu mën a nekk ñu war faa wane imaasu sëñ bi wane fa jëmmi sëñ bi wane fa sëñ bi te mooy ay yar ay teggin ak ak ak diine ak lislaam ak xam-xam fexe ba képp ku la gis sam xel du daj kenn ku dul Serigne Touba fexe ba képp ku la xool sam xel day gën a bëgg sëriñ bi da koy gën a wóolu da koy gën a doyloo waaye du xeeb sëñ bi mukk du ko du ko du ko du ko ñàkkal war ma mukk kon loolu ñu ngi ci dellu di ci santaat bu baax a baax la di ci dellu di gërëmaat bu baax di ñaan yàlla nañ ko teewe ay at yu bare bëree bëree bëri ci dëj pëccee ngërëmal sëriñ bi ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall kii ni leen ko waxee ci sunu arrivé fii ci Sarsara ñu teew ak kenn ci kilifa yi nga xamante ne nii agsi na ci jotaay bi muy Serigne Khadim bokk ci waa kër ma samba bëgg a taataan ay kàddoom ci li nga xamante ni mooy tracé bi eh, depuis Daaru Nahim Daaru Daaru ci kër Serigne Sabara Fall ba fii ci Sarsara jërëjëf euh, ñu ngi sant yàlla suñu borom mu ñu may ñu agsi fii ci Sarsara nekk bërëb boo xam ne Sëñ Tuubaa nekkoon na fi ñu amoon xamante ñëw fi nag yàlla def na nag ñu ne fi tey jii di guddi àjjuma euh, ci weeru sowaal ah wax dëgg yàlla sant yàlla def ndax suñ Tuubaa bi fi ne fi nekkee euh, boobaa léegi at yi yàgg na lool kon bu ñu yàlla ba yàlla def maanaam bërëb bi ñu dox ko gëstu dox ko gëstu maanaam ba nga xam ne feeñ na ba mandagal ko ba nit ñi dafa mën a ñëw di ziar loolu sant yàlla la ana mur yu bëri ay mag yu bëri yoo xam ne ñëwoon nañ fi ñëw seer sëñ bi jamono ju metti jamono boobu liñ la des ci yoon wi ci ñu gis yooyu daaw ñu goo xam lu rek Euh, di xencu jeexit yooyu asar suñ tuwaa ñu ko jeex ñu di ko xencu yàlla def ñu ñun tam ñu am tawfeex ñëw fii ci bara bi sar sar ñëw fii tam ci guddi ajuma sant yàlla bu baax dañaa yàlla suñu borom la suñu borom defal li nga xam ne suñu tuwaa da ko defal mag ñi suñu ko jaare ko sëriñ bi mag ñi ñu ñu ko fekkoon siyaare si ko ñun tam ñu am loolu ci ci gi ñëw si gi ñu si barab bii ndax wax dëgg yàlla sëriñ bi nekkoon na fi jamono bi ñu jógee Gabon euh, ñëw Darou Manane fii la ñëw Mauritanie doon fi at yu bëri itam jóge fi a ñu yóbbu ko euh, fële ko yóbbu Njaareem mu ne fa fukki at ak na ko fonkoon na barab yi nga xam ne dafa dafay newoon jaamu yàlla ñu baax nekkoon fii tax ay sërif ay ñetti yàlla ay wàlliyu mu nekkoon fi ak ñoom itam ay seede yu yéeme ay borom xam-xam ay kàngam ñoom ñoo seede suñu Touba bind ci moom yéem bi mu leen ak xam-xam bu rafet ak wilaay gu ko yàlla may yu bëri xew na ci Mauritanie xay na yëpp duñ ci mën a waaye yu bëri bëri xew na fii kon nag bu ñu suñu borom mayee ñun ñun ñi nga xam ne ñun suñu gis ñu ko waaye gis njabootam ñu bokk ci ñu bokk ci njabootam itam jàng ba noppi jàng ay tiiram dox man dem naa libre bi dem naa Mayumba dem naa Kabalu Pes yëpp dem naa waaye fii moom maa ngi fi door ñëw tey waaye wax dëgg yàlla am na dund xol ndax gisoo fa dara lu àdduna amul àdduna fii amul ay tabax mu mel ne amul ay kër amul ay bâtiment ay xayma la ñu defar ngir mbokki taalibe yi ku ñëw mu nekk sa dalwaay amul sax tali loolu gën a yéeme maanaam fii moom yàlla kese fi nekk suuf si suuf su set la su tey la ay montagne ak ak yi xuur la maanaam ni ni suufu euh, dese ni baaxu mel rek waaye wax dëgg yàlla lu yàlla la fii daal barab bi yàlla na moo tax nit ñaa ngi forlu bu baax di ñaan see ay ñaan di góorgóorlu def ñaan kon nag lu lu lu lu mat a bàyyi xel la lu nga xam daal kon daal lu am solo laa bëgg wax lu la ñaan yu ñaan ci guddi ajuma gi nañ ci farlu bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ku jël dépassé ay kilomètres yu bari senegal ba Mauritanie ñëw fii war ngaa farlu bu baax ñaan say aaju nag. Yeah. ak jënn jëriñ sëriñ Balla Mbay bokk ci daayira jamaatul na euh, bu nu ak sot euh, ñu bëgg a taataan ay kàddu sëriñ la naka ngeen def ak mbooloo mi ak kañ ngeen ak si fii ci Sarsara euh, ba daal di mën a dikk rek taxawal liggéey bu am solo bi ngeen xam ne saa si tembe ci lañ leen fekk aousu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki julli di mbokki taalibé yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar baax te di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ñoo ngi ziar mboolem ko fi teew ñun sunu daayira daayira jamaatul muridiyya la du war a toll ci juróomi daayira ñoo lëkkaloo ñu tàmbale ko ci daayira Daaru Xudóos ci la bokk daayira sëñ Daaru Asan ci la bokk soppe sëriñ Fallu ci lañ bokk ak waa mooy bu naafix ak yeneen ak sax bari na wax dëgg yàlla waaye ñun dañuy def at mu jot dañuy fexe fas yéene jiitu si képp koo xamante daal yaa ngi ci biir réew mi wala gaa ngi jógee noog so di ñëw fii ñu amel la sab reer bu subaak te bu su xëyee bu soobee yàlla képp koo xamante ni tam yaa ngi yendu fii buñ sañoo la joxoon lu nga xewlu te loolu defuñu ko lenn ci dul maanaam dërëm dërëmi taalibe yi ak ñaar dërëm ñaar dërëmi taalibe yi képp noonu koy doxee waaw. mu mel ne si ngeen fii ci boori timis naka ngeen dundee li nga xamante ni mooy yoon bi Nouakchott ba Sarsara. dëgg la ndax ñun sax ñu ngi déparé euh, euh, Nouakchott ba ñuy lijjën suñu otoog yooyu ñoo nga jógee foofu ay boori midi ba une heure la ñu dem première dajaloog waa première ba ñu ànd doon benn say ñu àndandoo jógee foofu départ jëm si fii. egsi fii bi ñuy egsi fii daanaka ñu ngi waaj julli timis fii la ñuy jullee timis bi ñu egsee nag xam nañ ne fu waaye fu nit nekk da ngay soxla ndox nañ jëlaat ay oto yëpp ci ay baas dem ci forage yi duy ci ndox ñëw indi teg tegi mbokki taalibe yi képp ku fi teew boo soxla ndox tey booy baasum ndox ak na la teg indi nañ ay lamp ak lépp lu fi waral leeral ay rajo gi yëpp ñëw teg bëgg benn mbokk taalibe bi du fi am benn jafe-jafe loolu daal mooy suñu bëgg lu mel ne liggéey bi ngeen def ba loolu lépp yomb fii ci rek nga xam ne désert la ay montagne la amul ay dëkkuwaay amul courant amul ndox ngeen toppatoo toppatoo bu yomb boobu ndax dangeen koo àndandoo rek ak daayira jamaatul diine bi wala benn daayira rek moo ko sasoo déedéet dañ ko àndandoo ren ak euh, maanaam jamaatu jamaatu bi yëpp bu njëkk sax daanaka dañ ko daan xaajaloo mois bu daan ñëw dalam daal xuloos ñëw ak dalam waa ko sëñ Daaru Asan Njaay waaye ren dañoo xool ne ñun ñëpp ñoo bokk bëgg mooy nu euh, mbokki taalibe yëpp xewul xewloo moo tax ñu dajaloo nag doon benn def wenn say ñii ñëw jiitu si ñun ñoo ñëw jiitu si waaye am mbooloo bari maa ngi ñëw ci ñi ñëw ci yoon wi noonu la ñu defee ren waaye bi ñëw ci yoon yi wax dëgg yàlla am nañ jafe-jafe yi maanaam bu ñu sañoon lu mel ne tey président yi dimbalañ ci aw yoon aw yoon moom suñu bëgg la ndax bu ñu sañoon oto bu jógee ti Sénégal mën a daw ba egsi fii ñëw toxal ndax maanaam élection yi ñuy jël day seer lool waaw loolu daal mooy sunu sunu sunu problème bëgg nañ aw forage boo xam daal moo di joxam ndox ñoo ngi koy sàkku ci maanaam gouvernement yi ñu dimbale ñu ci ngir jëmi sëriñ bi jërë ngeen jëf mbokk yi ñu toog ak kenn ci jëwriñ ñi nga xamante ne ni ñooy jëwriñ ñu jiitu ci liggéeyu Sarsara muy Serigne Fallou ñas ñu bëgg a taataan ay kàddoom Serigne Fallou mu mel ne yaa jiitu si xayma xayma yi tànt tant yi naka nga dundee liggéey boobu ak mbooloo mi nga ko àndal. waa aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant suñ Tuubaa bu baax a baax tey gërëm maam Cheikh Rafal suñu yaakaar tey ak ëllëg di sant mbooloo effectif bi ñu àndal lépp ci liggéeyam Sarsara ci ndigal sëñ Sidi Mbacke moom sëñ Moutala ndax ñun ci Sénégal lañ jógee Touba ñëw jiite si liggéey bi def fi ñeenti fan avant mbooloo mi ñëw si. Euh, mu mel ni ndox ñu ngi koy jëlee dëkk bu ñu wax Tayib waaw toll na ci sept kilomètres ak barab bi fa la ñuy jëli jee ndox ren daa mel ni jox nañ ñu vingt quatre tonnes ndox bi ñu ñëwee ak léegi si ñu tàmbalee ko ci liggéey Sëñ Tuubaa bi te amul fay dara bu ñu leen nee dañu jënd gasoil sax ñu ñu jël leen addi Sëñ Tuubaa kon loolu ndimbal Sëñ Tuubaa la ba tey ay naar lañu waaw muy ñi bokk ci gox bi ñu koy wax dëkk bu ñuy wax Tayib ñu doon ñu am laa bi tamit ci ndimbal loolu bi ñu ñëwee tamit ci wàllu liggéey bi baas yee xayma yi dem nañu ba ñàkk effet euh, maanaam matériel maanaam manqué nañu lu mel ni ay xayma manqué ay bant yi ko war a yëkkateeg yooyu yëpp dem nañu maatamulaana ci xaas misri moom itamit euh, mu doon ku baax sërif bu baax bu xolam nangul Sëñ Tuubaa itam maanaam xolam nangul na Sëñ Tuubaa lool muy kenn tamit ci liggéey Sëñ Tuubaa bi euh, jox nañu matuwaay yi nga xamante ni yëpp moom la ñu war a yeggalee liggéey Sëñ Tuubaa bi ne ñu bu leen bëggee tamit ñu boole leen ak mbooloo mu ànd dem liggéeyal la ñu ne ko teggil nañ la ko comme da ngay recevoir ay gan ci ajuma yi sëñ Tuubaa ji ci Sarsara encore euh, mu daal di ñu jox matériel bi yëpp wax dëgg yàlla ànd ceeg mbégte lool jàppalee na ko ñu ñëw yeggale si liggéey bi. barab bu mel nii gisoo lekk gisoo naan gisoo foo tëdd lépp a ngi fi itam ngay jànkoonteeg moom sa xol di nangu kon ñu ngi koy santaate sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax yàlla def na nag comme at mu jot maa koy jiite tamit. ma àndaat tat ko ñoom tey ñaan yàlla ñu fekk ko ay at yu bare bare bare yàlla suñu borom di ñu may kàttan ñuy ñëw di ko liggéey sëñ Tuubaa ci ci ci ci xol bu yi tamit ndax xol yi moom mu bañ waaye ñu ngi ñaan daal yàlla na yàlla dolli ñëpp jàmm rek te yokk leen xéwal barke Seexul Xadiim jigéen ñeet surtout ñoom jàmbaar lañu lool ay jigéen ñëw ànd ak ay góor ci àll bi di taxani mat di togg di raxas mett na mu mel ne soxna yi ñëwee soxna yi nga xam ne ñoo ànd ak góor yàlla yi nga xam ne mooy daayira jiitu si bi nga xam ne ñooy jiitu fii ci Sarsara di defar xayma yi donc ñoom ñu am fi lu mat ñeenti fan dikk fii nga xamante ni mooy Sarsara soxna si ñoo ngi lay siyaar baax soxna Astou naka ngeen dundee coono yi ak fii nga xam ne mooy Sarsara ngeen jiitu si fi. bisimilah rahmaani rahim jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jarawul ak Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noo rëy ni waaw sant rek ndax euh, metti na lool mais liggéeyal sëriñ Touba yombut. te bu la Sëriñ Tuubaa dimbale nga doon tut tànk mu xiirtal la ci bopp nga koy liggéey da nga ci war a sant mais jiitu bi tar na lool mais dañuy dellu santaat Sëriñ Tuubaa ba loolu delluwaatee tegu suñu kaw ndax yombut ndax ay tut tànk ñu ngi ci dëkk bi ne ci leneen di yëngu ci leneen mais Sëriñ Tuubaa dimbali ñu ñoo diñ ci boppam ñu ngi santaat bu wér di sant nag soxna yi may àndal ndax lépp ñoom la ak suru jëru ji Fallou Niass di ko ñaanal wér ak kattan ak gudd fan talaata ba tey ñu ngi fi talaata ba tey ñu ngi fi fii metti na amul ndox lu nu indiwut duñ ko fi fekk lu nu indiwut duñ ko fi fekk talaata ba tey ñu ngi fi di jaayante jaayante metti na lool nag tar na lool mais sant yàlla rek sant yàlla weer te santaat sëriñ Tuubaa wér wér waaw dañ leen di ñaanal dañ leen di woo rek ñu ñëw ci liggéey bi ndax lii rek mooy dëgg lii mooy dëgg nekk ci yoon liggéeyal sëriñ Tuubaa rek mooy dëgg ndax lépp lu waay mën a jàpp te liggéeyal sëriñ Tuubaa perte nga waaw li doo nga fi des ci jaamu yàlla liggéeyal sëriñ Tuubaa ak jaamu yàlla doo nga fi des waaw may woo soxna yëpp di soññaan ñëpp di tàmbalee soññ bi sama mbokk taalibe yi ñu taxawaat gën a takkaat suñu ay laxasaay gën a yeesalaat suñu njébbal bu baax a baax waaw ñu sant nag yéen tam kenn du yéen ndax ak góor yàlla yi nga xam ne moom la ñuy àndal ndax lépp ñoom la tamit ñoo ñuy jiital ñu ne ci seen ginnaaw te ñoo ñuy dooleel ñu leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ci doole Serigne Touba ak Thierno Ibra Faty bi suñu buntu ci biir kër Serigne Touba gi lu waay mën rek bu daw nee yàlla nga mën lu ëpp loolu bi barakati Cheikh Ahmadou Korma yàgga di ñaanal nag sëñ Sidi Mourtala mi nga xam ne moo fii suñu sëriñ Touba yàlla na ko yàlla may kattan ak wér yàlla ko yàlla may kattan ak wér lool jërëjëf ñaari na fi ñaari téeméer na ko jëpp dégg ba mo yëpp nañ ko dégg fukki muri saade ak juróom-ñeent yu yu ko yéene te mënuñu ko ma joxeel leen maa ngi ñoom ñu ngi nii wajalilaayi maskani tubaaba weer wi dee bu kenn des bul yem ci yow dong soñal ñëpp bu baax Ayca Mouride Touba ca kanam weer wi dee na fii nag mooy boutique Total Kër Xaadim nekk fii ci route de Mbacké est-ce que xam nga ni lépp loo bëgg wala nga soxla ko muy jaay ci grande surface am na fii ci boutique Total Kër Xaadim waaw supermarché du ko gën a riche fii ci Touba rayon boo dugg nag di nga am li la gënal alimentaire produit d'entretien cosmétique matériel scolaire dañuy jaay ba jaay sac ak fourniture pour élève bi nga xamee ni mooy dem école waaye ci màggal gi li ngeen soxla yépp soxlaatul ngeen di dem ba Dakar ndax bu ngeen ñëwee fii ci boutique Total Kër Xaadim di ngeen am li ngeen bëgg dañuy jaay ba jaay ay vaisselle am nañu itam marque boo xamante ni poroxaan soow la ñu ko tuddee gis nga poroxaan soow mooy soow bi nga xam ni boo ko ñamee di nga tàqamtiku am nañ ko caakiri am nañ ko ba am ko siwo soow bu 20 litres nga xam ni bu ngeen amee ay bernde fii ngeen di ñëw ngeen jëndee ko ci Touba Total Kër Xaadim muy Poroxaan soow am nañu charcuterie ubbi ci kaw restaurant bu baax restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen réservé pour seen i conférence seen i réunion seen i cérémonie seen i pause café seen i ndaje lu ngeen te soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar. loolu. dañuy jaay fruits di jaay légumes am nañu ba am lépp loo xamee ni soxla nga ko ci boulangerie mën nga koo fekk fii ci boutique Total Kër Xaadim boutique Total Kër Xaadim ak màggal gi mën ngeen ñëw jënd seeni bernde bégal seeni gan

boutique Total Kër si laay frère ONG Eulo Café ñoo leen doon gunge ci seen ziar Sar Sara édition 2022